alhamdulilah di leen ziare euh, di rafetlu seen taxawaay macha allah am na solo waaw man mii de demoon naa ma ne ko demoon naa ca ca euh, woote mais ñu woote woon fee ca Dakar ci juróom-ñetti fan ci weeru juin demoon naa de waaw te ku responsable laa yor sama kër yor sama soxna yor samay doom ami mbokk am lépp. jug di xeex ndax ngir réew mi xeexaluma Sonko loolu daa war a leer ci bopp nit ñi ñii xeex xeexaluñ Sonko Sonko nit la na ñun daa fekk benn programme boo xam ne mi ngi woon ci bopp saa Sénégal yëpp lu mat fukki at ak juróom yi wees yëpp ku xam politique réew mi danga xam ne bopp ndaw ñi ak ñëpp da nga gis ne am na lu doon jeex-jeexi am na lu doon yëngu ci seeni xel ak seeni xol ñëpp di ko ngurumtulu ci suuf kenn nangu koo yëkkati ci kaw ñii di ko waxantu am ñu ko jot a wax ñu téeleen Sonko ñëw am audace wax ko ci kaw ña ko doon yëg ñëpp topp ko lii lañ ko topp waaye du nituk Sonko bi lañ topp déedéet waaw nekkut na nit ki lañ topp waaye programme bi muy dawale bala ngaa xam ne nit ñee yeewu tey Sonko taxawoon wax lu weddi programme bii mu teg nga gis nit ñi ne ko fi ñukk def ko nu raw nii ñu def Macky Sall kon tomp topp nu Sonko waaye programme bi mu indi ngir suqali réew mi te Sénégal yàgg naa ko wax di réew mu neex a defar réew moo xam ne ci wet wàllu démographie rëyut bokk na ci réew yi gën a ndaw démographiquement ci ci Afrique nga xam ne suñu suuf taxul mu yaatu noonu Mali mat nañu ñeent wala juróom ay wala kenn xamu ko nga ñëw ci wàllu euh, wàllu géographie sax laa wàllu mooy ci wàllu nit ñi mataguñ ñaar fukki million kon ñuy réew mu tuuti réew mu tuuti nit ña tuuti yàlla defal ñu ay mbell maanaam li ñuy wax ressource naturelle yu bëri wàllu zircon or jamaa lépp am ko nga xam ne Sénégal bu tege woon ci yoon rek laa wax bu xa waxuma tege ci waaye bu xawoon a tege ci yoon rek nit ñi kenn ku ne da nga am sa kër dégg nga ko sa kër ami frigo ami climatiseur nga am sa oto di dawal maam ña gën a ndóol loolu dañ koy am waaye réew mu tegewul ci yoon nga xam ne paajoo nañ ko nit ñu ndaw ñu matut juróom ci téeméer maanaam ŋànk lu téeméer ni waroon dund juróomi nit ŋànk ko di ko dunde lii moo nu sonal te nu war koo xeex te jamonoy 1960 ba tey moo fi am lii nag nit ñee koy xeex ay wax jëlewu ko fi parce que 1960 laataa loolu ba fii may wax ak yow yéen ñii nit ñi ñu ngi wax kon wax moom jëliwu mbir yi wax jëliwu ko nit fi mu toll fii gisul dara ju tuuru xeex bu tar maam askan wi ñiy jiite duñ respecté bukk askan wi te yàlla defal nañu tawféex ci Sénégal mësuta am njiit njiit njiit lu mel ne Ousmane Sonko leader politique boo xam dafa taxaw affiché wu opposé wu ak bépp puissance étrangère rawatina France nga xam ne mooñ ci gën a sonal ak yeneen yëpp sax waaye France yi jiitu ndax moom moo ñu noot noot gu metti noot fi ndool France nii mu ñu noté moo yées ni ñu noté woon sunu maam ñun ñoo yées ñu parce que ñee seen jëmm yi la notoon yeew leen ci ay ceen ñun sunu xel yi lal na ngoot dang yeew rocc sunu làkk sànn na fële roof ji seenu làkk yooyu yëpp ay xeex la réew mi dafa dafa weng maanaam fondement bi moo yàqu fokk ñu daana lépp te loolu xeex koy daana loolu ay wax képp jëlewu ko kon ci Ousmane Sonko lañ gisee waaye gis nga ñi naan ay duñ politique nañ bàyyi waxi caaxaan yooy nit bu jugee baax ngir defar réew mi ñëpp ko war a jàppale ay dana damay politique wax yooyu daa war a jeex luy duma politique kuru politique bul julli lépp ci lépp àdduna lépp politique la baatu politique day baatu tubaab nit ñi firi luñ ko nit ñi ñu xam ko loolu rek fi dool ay nax la nit ñi lañ firul lan mooy baatu politique maanaam ñuulal ko ci ñoom te loolu tubaab yoo ko def mooy li ma yàgg wax la yaa une barrage linguistique bu ñu teg su diggante askan wi Cheikh Anta Diop daanaka wax buñ bëggee rey nit ñi waat yi waat yi nga xam ne moom lees war a jëfandikoo duñ ko wax mukk ci làkku réew mi waa dañ koy wax ci làkku tubaab baatu politique lu tax duñ ko wax ci làkku wolof buñ ko waxoon ci làkku wolof maire yeeg ñëpp ay dugg ci politique bi ñëpp ay génn xeex ngir moom suñu bopp ku deewut ci xeex bi dee dee yii sénégalais yi dee moo gën a bon fuuf dee dee ci xeex bi parce que bis set nga dugg ci hôpital yi fekk kun kun nappaaje mu dee dégg nga ko bis set oto fël nit mu nappaaje ko bu bis set nga dégg ñu ne diw dugg nañ këram jam nañ ko ray nañ ko ray soxnaam ray mbaayam ray yaayam dee yu bon ku deewul ci xeex bii gu yées ngay dee te xeex bii dee mooy dee ci yoon yàlla parce que sam réew ngay xeexal xeexaloo ay nit kenn xeexalut nit réew mi la ñuy xeexal kenn xeexalut Ousmane Sonko réew mi la ñuy xeexal réew mi la xeex ñu samp ko mu am ay keno réew ay keno koy téye te keno yooyu man man ba ma jàngat politique gu Sénégal gis leader Euh, leader boo xam ci politique Sénégal la bokk boo xam ne mas naa wax lu ni mel ci réew day am li ñuy wax souveraineté muy moom sa bopp moom sa bopp ci ay fànn yoo xam ne mooy bu bu ma ko ma wax dama naa néeg ñeent keno yu ko téeg keno bi ci njëkk di matit ëpp ci solo mbatit ruuga di làkk ñu rey ñu ci làkk ñu war sampaat sunu làkk te musuma ci homme yi ñu wax waa jëm Ousmane Sonko laa njëkk a gis muy def discours lépp mu def ko ci wolof bu paree bu discours bu matee waxtu ci wolof bu noppee tënk ko ci juróomi ni ci tubaab lii mooy fulla lii mooy fulla parce que waxut ak i tubaab waaye askan wi lay waxal lii man daaw ma kenn daaw ko gis loolu Ousmane Sonko ko fi xewal muy lu am solo koo xam ne kon fexe na ba mbatit wi daajawaat mbatit mi tooge ñu ñu ngoyaat ci loolu moo ko fii indi muy benn kon kon day mel na sampaat na mbatit wi waaw loolu lu am solo la te nit ñu bàyyiwuñ ko ñaareel ba nga ñëw ci gis-gisam ci wàllu koom-koom wax ko nëbbu ci dara ci euh, politique étrangère yi gis-gisam ci wàllu soobare yi muy militaire yi gis-gisam ci suñu wàllu xayta gis-gisam ci sunu wàllu mboor ay position leer te nëbbu ko te soo toogut te kenn fa la gux kon kii dees koo war a jàppale nit la kuy xeexal yàlla yàlla lay xeexal parce que lii muy xeex yi ñëpp ci nekk lii muy xeex bu sottee kenn koy danga ci gis sa bopp réew mi dana tege ci yoon kenn ku nekk ku yelloo juróom jox la juróom ku yelloo fukk am fukk ku yelloo junni am junni ku yelloo million am million lii mooy aw yoon yoon bu amul kenn du tala am jàmm jàmm ku ko amul doo jaamu yàlla kon faaw nu xeex lii buñ bëggee jaamu yàlla kon ñii wax naan ay xeex bi ku ca dee yaa ngi nax sa bopp kenn xeexalu toom sunu kuy xeex sa bopp ngay xeexal man mii ku responsable la korog ba nu wootee damaa dem lakk ma seen am soj mu métti laa fii te damay damay demaat bu nu wootee damay dem man xeex bu nu wootee man damay dem ku responsable laa ab jàngalekat laa ku yàgg a jàngale ba jàngale ëpp na fukki kon xam naa njàngum réew mi njàngum réew mi baaxut réew mi amul wet gooy dugg na dox na amul moo wax ñi naan ay bu Sonko di wax na wax ci njàng mi na wax ci nangam na wax ci dund dund gu seeg loo ca wax mi ngi mel na tabax boo xam ne fondement baaxul ba mu weng nga war a wax ne nan daana tabax bi fondement waat yëkkati nga defa naan nan nan peinturaat wet gii nan peinturaat gi tabax buy weng tabax bu weng képp ku ko tiim amum xel da nga naan tabax bi na daanu ñu fondement war ko réewum Sénégal réew mi daa weng fi mu moo jëru di lijji di naan ay dund dund day a seer dund gi day gën a seer njàng mi da gën a bon pàcc mi day gën a bon infra wet goo dem day gën a bon parce que ni ma ko misaal tabax bi daa weng ba noppi képp daa weng na daane faxas bam set jël te daane kooku xam nga ne tabax bu weng caaxaan daane woo ko mooy xeex bi ndax moo tax ñëpp war a génn xeex ñëpp war a génn paa yeeg maire yeeg ku ne da nga ko mën da nga kaa war a xeex ak fa nga nekk génn xeex waaw waaye nefi di di di di tappale bëgg a rey nit ñi nit ñi waxuma la ñi nga xam ne ñi nga xam dañuy bëgg a bëgg a découragé loo nit ñi naan leen bu leen rey seen bopp ku reyut sa bopp fii rey sa bopp fii yës dee kay dee ci xare jamono yónte bi dafa am dee ci xare moo gën toog yambar yambar lu ba dee dee ci lii dafa gën dafa gën ëpp tiyaaba waaw dafa réew mi mi ngi soog a xeex ngir boppam mafia yi fi amoon ci wàllu yëpp ndax laa wax wàllu wàllu woo dem réew mi ay mafia fi amoon ay nit ñu lëkkaloo jéggi ci kaw ci kaw yi nit di dund seen kaw askan wi dee ne ci suuf nekk baadool lii moo fi am lii nag dafay war a jóge lii nag ay caaxaan jëriwu ko fi lii ñu dal nii moo réew bu ma la tuddaloon réewu Chine amoon na fa amoon na Japon amoon na France gii révolution bii ñuy def di ko xeex Ousmane Sonko di ko xeex falan jaar ñoom ñii ba tey seen i ñun ñii koo ci gis mu bëgg a dem France bëgg a dem Amérique bëgg a dem Canada da ngaa foog ne réew yooyu dañoo xëy xëy rek am jàmm réew yooyu dañoo dee ay millions nit dañ faa dee seen maam ya daan xaw a dee dañoo xeex ba république lu ko indi France ñu ngi ci seen juróomeelu euh, bokkeef bokkeef mooy république cinquième république ci leen toll nii république bu ne dañoo xeex ay nit a ay millions yi nit ñu koo samp adduna bu njëkk ay nguur a fi ne woon ay kii de kii faatu na dégg ko ku ko faatu sa doom doon la doom ca doon euh, jeneen doom ca doon ay doonante te nguuru doonante tegewut ci yoon tegewut ci yoon république looloo ko indi mooy bokkeef gi li ñëpp bokk la chose publique ñu xeex ndax ba ki nga xam ne mooy jiite léegi nit ñi ñooy xool ba gis na kii doon ne ñu samp waaye du doon koo xam ne naan diwoo ko jur naa nangam ak naa de lii fi indi république tubaab bi dañ ko wax xeex ku jàng histoire de France li may wax da nga ko xam première république ba tey ji ñu nekk seen république kon nguur gi kenn moomu ko réew am réew amu ko ko ay askan moomu ko ay xeet moomu ko kenn moomu ko ñëpp ci yem même droit ñëpp ci tolloo waaw kon nañ bàyyi ñenn ñi bëgg a stigmatiser ngir politique ñëpp a war a génn kon xeex ngir réew mi kenoy sampe su ñuy kenoo sampe ñu sampaat réew mi Ousmane Sonko man bi sax dama nga wax ne bu toogoon du mooy développer ak programme mooy kii samp réew mi mooy kii samp keno yi nga xam ne ñii ñëwaat maas yi ñëwaat parce que développement du lu yomb nekkul ab benn président mooy toog développé réew mais président bu baax ngay am mu samp defar fondement bu baax beneen président ñëw yëkkati ba ba ba raase mu set wecc keneen ñëw fondement keneen ñëw def finition développement c'est des étapes am ñoo xam ne ñu foog defalaat da nga naan wóob rek déedéet Sonko ñun Sénégal amagul sens su am euh, kilifa wala boog njiit loo xam ne day ñëw samp kenoy kenoy ba tey samp gun ko kenoy mooy lan mooy fexe ba réew mi ñu samp ko ci sunu mbatit di jànge ci làkk wi réew mi ñu samp ko ci wàllu koom-koom Cheikh Anta wax na ko ci téeram ba les fondement économiques d'un état fédéral d'Afrique noire gis nga ko les fond cëslaayu koom-koom ngir benn le réew yi ñu lay téere boobu ku ca dellu li may wax nii da ko ca fekk dégg nga ko kon ñu waroon a samp réew mi ci wàllu koom-koom fexe ba franc CFA bi yii jóge fi ginnaaw bi bi ma waxee wàllum éducation muy njàng mi te njàng saw làkk sawul ci war jàng di wax ak ñi ci làkk wi di wax ci làkk wi ci xeex bi la bokk moo tax ñiy njañ seek commenté bi sa dama naan dee leen bind ci wolof dee leen bind di wax ci wolof parce que ci xeex bi la bokk ñaaral mooy koom-koom ñu samp ko ñett ñetteel ba ci wàllu suñu wàllu sóobare nga toppe ko noon mooy ñi nga xam ne mooy keno yi nga xam ne ñooy téye am réew ba sampe ku ñëw mën mën a mën a développé mën a jàll yii ndax musaguñoo am njiit ca Senghor ba ci Macky Sall mi musaguñoo am njiit goo xam ne ñëw na ngir samp loolu ku fi ñëw da nga ay dund yu seer rek nangam nangam maanaam day mel tabax bu bon bi rek nga bëgg ne ci tabax naan nañ peinturaat fii xoolil fii defa te yow li ngay tabax nga peinture baaxul tabax bépp fi war a jóge dañoo war a xeex tabax bi daanu ñu raasale ko teg na la te loolu caaxaan ay caaxaan ma yow xeex la nit ñi génn xeex rayante moo moo koy may macha allah MGN macha allah am na solo wax nga lu am am solo macha allah waaye nag loolu am na jafe-jafe li nga wax nii jafe-jafe xam mooy la na ah? manifestation mooy boo ko doon firi ci wolof mooy ak feeñu feeñu feeñu ngir wane saw na naqar feeñu képp la mooy la waxoon sànq rek moo tax ma ne mi daa nit ñi dañoo xamul dara nit ñi dañ leen a jàngalu yeewuñu leen yàlla xam na ko nit ñi xalaatuñ ci seen i xele bopp loolu nag mooy réew mu daa joogut te loolu baatu manifester mooy feeñu feeñu ngir wane saw naqar lii képp la de kenn wuru la cee def dara parce que démocratie dafa bokk ci les piliers de la démocratie maam ci charte démocratie manifestation la cee bokk boo ci charte nday réew mi ci amee lu la metti nga génn war a saw naqar ñu gis la te dara lu la ci fekk ba ba sax booy feeñu di wan a saw naqar maam dañ laa war a yiir yiir dañ laa war a aar maanaam takk der yi ñoo la war a aar ba nga war a saw naqar wax ko ni nga ko bëggee ñu dégg la lii dafa bokk ci les piliers de la démocratie waaye ni njàngum réew mi tëdd bi sa dama kay wax yokku gi lépp lii la nit ñi ñoo xamut waat yi jëfandikoo waat mooy jamxu baat bu nee baat wolof waat la yor ay waat waat yi ñuy jëfandikoo nit ñi ñoo ko xamut bu nee manifester ñu réyal ko fekk na manifester mooy xeex déedéet fi mu doon suñu maire koo gis maanaam ah bu la gis ngay manifester ay boo demee ca manifester manifester du dara manifester am lu la naqari génn wax sarti lii ba fi ngu bu njëkk àdduna ay empire fi amoon ay ay buur a fi amoon ak i doom di doonante ñu dañ daan not nit ñi daawu tege ci yoon parce que loolu moom xel nangu ki ma jur rek moo ma moo mën a doon kee kooket kam jur loolu dafa république yi ma doon wax sànq looloo ko fi jëlee bi nit ñi sampee démocratie samp république démocratie nekk ci biir nit ki am ndax léegi àq bu gisee lu ko naqare ci doxalinu réew mu génn wax ko ba loolu bu njëkk amut boo ko mësaan def da rey jamono yi nga xam ne empire am ba ci France gii jamono yi fi am avant la première république nga xam ne ay empire dafa amoon maanaam ay buur ñoo fa daan nekk di jiite buur bu bu gaañoo doomam toog booba kenn amut sañ-sañu génn di wane saw na naqar naan buur bi nii mu doxe niixuma ak nanga déedéet kenn kenn xalaatu ko loolu ak notee la tuddoon moo tax adduna bi ak njaam dafee yàgg ay nit ñoo xeex fi mu dool démocratie bii ngay dégg ay nit a xeex ba samp ko waaye bu njëkk démocratie amul ay nguur moo fi amoon ay empire boo dee sa doom toog sa doom ji bu dee keneen toog moo mboor foog ñu jàng foog ñu jàng mboor xam adduna nu mu sosoo ak nu mu doxee ba yegg si fii waaye bu dee suñu xam-xam dañ ko bëgg a yemale ci fukki at yi ñu dund wala ñaar fukki at wala téeméeri at yi ci ginnaaw nga xam ne xamuñ lu xew ñun Sénégal boo nee mboor daanaka seen mboor bu nettalee lépp du mat ñaar téeméeri at ci ginnaaw loolu du xam-xam xam da ngay xool mbir yi lu ko indi système politique yi am ci àdduna lan moo ko indi ci lan la ci lan la daaje ñun suñ système daanaka plagiat dañ koo copier maanaam dañ koo tepp ñëw tafal ñu du suñu xalaatu bopp mais ban ko teppee taf ko sax lañ teppi taf ba ñuy taf sax dañoo juum ca taf ka parce que lanu taf baaxut parce que démocratie réewi tubaab yi ni koy dunde bokkut ak ñun ni ñu koy dunde démocratie Afrique gu Sénégal gii nga xam ne boo nee manifester ñu seen xel dem ci baatu rey loolu gis nga ko mooy li ma wax manifester ci sa xel dem ci baatu te mu waroon nekk lu pacifique nga xam ne maire yeeg paa yeeg ñëpp sax dañoo waroon di ba ci gone ndaw yi nga mën a pop sa doom kii boot doomam kee tungoom doomam ngeen di dox nànk xool ko ci réewi tubaab da ngay manifester yëkkati say say say pancarte bind ca d'accord ma diw na fi jógee nangam ak nangam wax yàlla naqari lépp dara. Ah, takk der yi protéger la aar la yii la nga wax la la naqari wax say soxla lépp doxaat nànk dem ñibbi lii mooy manifester waaye leeru ci bopp nit ñi parce que ci ay ba waati tubaab lañ koy wax mooy li si xam ne la barrage linguistique li may wax faaw dañ koy tabaxaat faaw dañ koy tabaxaat day doon réew moo xam ne dañuy yaraat nit ñi ci njàng ubbi seen xel yi ba nit ñi di xalaat lii feek amut nit ñi daanaka Sénégal ñi ci yeewu ñu néew la matu juróomi ci ci téeméer yàlla xam na ko